sant yàlla bu baax nag ndax sama dëkk yi moom mënu ma leen a fay ndax fekk na sama xale yëpp ci biir buñ ma seetaan woon mën nañ cee dee mais bagage yi moom li ci yàqu bari na bâtiment bee noonu dara lépp yàqu na waaye teewul nag sant na yàlla bu baax ndax bakkan mënoon na cee des desu ci sama dëkkandoo yëpp kër gi ñëpp lakkle tapis rouge bi ñu dendaloon moom la mat laay jàpp bi mu jàppee fekk maa nga ma daw ñëw bu ma dawee ñëw tamit sama dëkk yi jàppale nan ma génne nañ sama xale yi génne bagage yi bagage nag li ci yàqu bari na bâtiment bi moom lépp lu ci yàquwut maa ngi sant ñëpp nag sant naa yàlla ndax bakkan waddu ci lakk gi moom xam ma lu ko waral marché laa dem seen ko muy tàkk ma daw ñëw nii laa li ma si lakkale kay mooy sama bagage yëpp moom yenn yi na yenn yi lakk na bâtiment bi nag lépp lakk amul lu ci baax lépp lakk. est euh, dara wóoru ci dara dara ci wóorut ndax mat laa moom ku ne xam na ne bu jàppee moom yaa ma gën a xam. bakkan sax mën na faa des bay bëgg a dee dafa métti fii doongu laa dëkk waaye li waro lii bu doon guddi la yàlla tere maa dee daal waaye kon mooy loolu waaye nag sant nañ yàlla ba mu doonee ak bëccëg ñu ñaan sëñ Saali Mbàkke def ci ndox mu seddu guy ci barke borom Tuuba xanaa ñu génn ci koñ bi rek fii moom dafa dafa dafa xat ma ba fa xam nga ne ay du ci bopp borom tey ji suñuy xale fii lañ nekkoon di jàng tey ji yàlla tere yàlla tere xale yëpp ci yemoon nan lay mel ak fan lañ koy waxee ji sant yàlla rek ndax mënoon naa gën a metti ñu ngi sant yàlla bu baax ndax mënoon naa gën a métti kon duñ si man dara mais nag suñu boromam def nañ si tura waaw sant yàlla rek ñu ngi sant bu baax a baax a baax. man machine wal laa yor. Mhm. waaw yi moom wax dëgg yàlla sant yàlla moom xamaguma lu yàqu ndax damaa génn bagage yi nii séparé leen. lan moo ah, ay machine moo newoon ci biir ak i bagage mais bagage yi moom lépp génn sax. ñaata machine. Hmm, quatre tàkk-tàkk bi ban heure toog rek buñu place toog ba si yàgg rek gis affaire bi tàkk si biir waaw. moom moo taal bërëb ah, ma ne dara moo ko taal matelas moom ma lu ko taal moom mais si matelas yi la déparé waaw matelas yi dépp waa tapirous tapirous moom dépp moom fii la tàkkee si naa am nag mu courant mais nag sant yàlla daal ndax mënoon naa gën a metti te ko ne si man dara voilà tey ci suba euh, bu 10h16 minutes jotee dañu woo pour benn feu de magasin magasin boo xam ne ay matelas lañ fa doon denc donc 7 minutes plus tard euh, juróom-ñaari minutes bi ñu ko si tegee premier secours yi ñëw nañ si sur place donc bi ñu ñëwee constaté nañ ko ni effectivement li ñu doon woowee moo nekk sur place donc ñun def nañ une heure minutes pour mën a fay lakk boobu donc pour cette pour intervention bi élément sapo pompier yu Touba jot nañ cee engagé ñaari fourgon mooy camion yi fay lakk. jot nañ cee engagé aussi euh, lu tollook ñaar fukki élément donc le commandant de compagnie mooy ki commandé Camp Sapeur bu muy man donc li lakk moom xam naa ni li li waral lakk bi loolu police ubbi na enquête am donc dañ leen di bàyyi ñoom ñu terminer seen enquête dinañ mën a définir cause yi tax mu lakk voilà donc euh, li ma mën a wax mooy fii heureusement amuñu di ñaaw ñaawlu euh, perte en vies donc kenn ñàkku si ñàkku si bakkanam donc lépp li ci Euh, yàqu ay matériel la mooy ay matelas yu ñu fi stocké woon donc damay profité ci occasion bi tamit di lancer un appel à population yi nga xam ne matériel yi dafa ma nekk matériel yoo xam ne dafa gaaw a dafa gaaw a lakk te bu lakkee lakk bi souvent day am doole donc bu koy stocké wala ñu koy denc quelque part nañuy jaar fi ñu war a jaar donc ñu wax leen mesures yi ñu war a respecté ñu mën ko respecté pour bu subaa incha allah lu mel nii dootul am